al mulk se ذا الجمال

Allez كل بخير bisimilah kon ñu ngi toog ak euh, Serigne Saliou euh, di jëwriñu kuréel ahlu Sindidi ñu gis na tey dañoo doon amal liggéey bu am solo ci maanaam daara ji muy ziar annuel kon dañuy bàyyi ak sëñ Saliou rek maanaam maanaam mu joxe ci maanaam li nga xam ne moom mooy jëm ci wàllu ziar bi mu wax ci. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. yaqudu li kun fayakunu haaji minka bila aqdin wala tahaji yasir lahum bihi lisi taasira fa kullu ma satu taasira aji Cheikh Ibrahima Fall ñoo ngi siyaar ñëpp di warmaal ñëpp di màggal ñëpp di jiital ci nuyoo bi ak lépp rek fi ñu jugee muy ki fi nekkal Sëñ Tuubaa muy Serigne Cheikh Sidi Maxtaar di ñaanal sa borom yàggal ko fi ba li bëgg a borom Tuubaa mu matale ko di ko ñaanal Serigne Cheikh jëmb mi nga xamante ni mooy xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall euh, li mu bëgg a liggéeyal borom Tuubaa mu matale ko di ñaanal itam suñu jëwriñ ñi nga xamante ni ñoo jiite liggéey bi muy Serigne Abdou Lahad Mbacké muy Serigne Cheikh Abi ak Serigne Amsatou Mbacké mi nga xamante ni moom lañ fekk si fii ci daayira Soxna Jaara daara Soxna Jaara waaw xanaa Serigne Modou dañuy sant sant Serigne bi bim ñu defalaatee tawféex ñu fekkewaat bis bii defal ñu tawféex ñu jàkkaarloo ki nga xamante ni moo fi Sëñ Tuubaa muy Sëñ Cheikh di Maxtaar defal ñu tawféex itam daara ji di yoon bi njëkk muy jaar foofu ñu naan xuru Mbàkke nga xamante ni barab la boo xamante ni nee nañu ku fa teg sa tànk rek ñu jéggal la loolu ay cant la cant la goo xamante ni daara ji maanaam tawfeex gu daja la muy siyaare xuru Mbàkke siyaare Serigne Cheikh Seydi Makhtar ñëw siyaare Serigne Abdou Lahad Mbàkke mu Serigne Cheikh Abi ak Serigne Amsatu loolu ay kàddu ay kàddu yu sant la yoo xamante ni daal ay tawfeex yu daje ci daara ji la wax dëgg yàlla di euh, sant nag bu baax. ñi nga xamante ni ñoom lañ bokkal liggéey bi muy waa kuréelu axlu sindiidi bàyyiwuñu fenn itam muy Bambey Ndakaaru euh, Daara Jolof Kawlax ba bitim réew mbokk taalibe yi nga xamante ni ñoo ngi jàpp ci liggéey bi maanaam amal nañ leen ay kàddu yu cant di sant bu baax a baax a baax nag suñu jëwriñ sëriñ Abdou Lahad Mbacké mi Serigne Cheikh Abi ndax euh, dañoo may fit ci liggéey bi wax dëgg yàlla dañu cee may fit ba pare maanaam ànd ak ñun lépp nag bàyyiwuñu fenn fu ñu jëm ñu nag moom may ànd gis ngeen fi mu ne nii ni mu guddee waaye ba tey ñu ngi fii ci kër si Serigne Amsatou ñoo ànd kon nag ay kàddu cant la rek te gën a laxasaayu waat te xam ne lépp loo xamante nii dégg nañ ko fi ci ngërëm mbaa cant gu jugee ci kilifa yi dañ ko war a def ak der rek takkaat ko euh, jawale waat déwén di soññ nag mbokk taalibe bu baax ci liggéey bi ak li nga xamante ni moom la sëriñ bi teg ci suñu loxo muy këru xasidaam googu mu nga xamante ni da koy taxawal fii ci Touba nga xam ne daa jël liggéey bi yëpp jox ko waa kuréelu si ndiidi kon nag loolu ay kàddu soññ la yoo xamante ni ñun kat kenn waruñu caa mën sëriñ bi waxul ñu tabax ko déedéet waaye nag junj daa doy borom xel dañu ko jox liggéey bi kon kenn waruñu caa loolu tamit nañ ci nañ ci yokkaat pasteef gi jaayantewaat suñu digganteeg sëriñ bi ba li nga xamante ni moom sëriñ bi bëgg na ko ci liggéey boobu waa kuréelu si ni di matale ko te ñu ànd ko jullit yëpp nag ak murit yëpp ñu kenn képp koo xamante ni nam nga cee barkeelu rek maanaam ubbil nañ le bunt yi woo nañ ñëpp di soñu nag ci lii ñu jëm muy 18 safar nga xamante ni mooy màggal gi nga xamante ni mooy màggalu Sëriñ Tuubaa gi nga xam ne moom nee na lottu na ci ñu lottu na ci sant bay ñuy woowee ñu ñu ko koy santale kon nag loolu ñu xam ne kuréelu si Ndindi da cee am wàll woo xamante ni da ko baaxoo di ko def ak Serigne Abdou Lahad Mbacké mu Serigne Cheikh Habib mu 17 safar fu mu jote mbokk taalibe yëpp dinañ dajee fee ca barabu Serigne Saliou jàng fa si Ndindi yëkkati fa xasida booloo dajale suñu addiye yëpp dem fàggu ci ay bernde siyaare Serigne Abdou Lahad Mbacké mu Serigne Cheikh Habib def ko addiye seen Touba ci màggal mi kon loolu itam ñu ngi ciy soññ mbokk taalibe yëpp. ñu gën a waat rek di xam ne dara nekku fi lu dul liggéey Sëñ Tuubaa képp ku la raw rek mu ngi la rawee ci liggéey Sëñ Tuubaa te tawféex la tawféex la nga ànd ak ay kilifa yoo xamante nii mat nañu kilifa lool wax dëgg yàlla kon nag ñu ngi sant ñëpp bàyyiwuñ kenn mbokki soxna yi yi nga xamante ni tamit dañoo ànd ak ñun liggéey bi te soo ba léegi foo ñu gesoo gis leen ci suñu ginnaaw ñuy jaayante wax dëgg yàlla euh, góor ñii mënaluñ leen dara ñooñu tamit ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax dañuy wax ne Baye Saliou Niang amal na leen cant daal waa kuréelu si ndiir ndax wax dëgg yàlla fu mu méttee mu gis leen ci ginnaawam te fu mu wootee ñu wuyu si fu mu laajee ñu joxe te sëriñ bi képp tax te sëriñ bi képp tax kon nag ay kaddu cant yoo xamante ni daa jugee personnellement ci man jëm ci waa daara ji yëpp ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal kilifa yi nga xamante ni ñoom lañ siyaare tey ak kilifa yi nga xamante ni ñoom lañ am yéene siyaare yëpp saa borom yàggal leen fi di ko ñaanal Cheikh Sëñ Tuubaa yëpp di ko ñaanal njabootu Sëñ Tuubaa yëpp ba ñëpp ñoom ñu bëgg a liggéey Sëñ Tuubaa ñu matale ko kon nag Sëñ Modou xam naa dañuy wàcce foofu kàddu yi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërëjëfe borom Tuubaa jaraw lakk maam Cheikh Ibrahima asalaamaaleykum wa rahmatulah ñu leen di siyaar bu wér a wér di di jë jël sunu kàddu muy ëmb kàddu mboolem soxna yi nga xamante ne ñoo nekk ci kuréel Akhlou di am ndigal li nag jóge suñu jëwriñ soxna Mariana Sène ñu ne woon rek nañ jàllale kàddu yi nga xamante ne kàddu sant la ak ngërëm ci suñu sang yi nga xamante ne ñoo ñu jiital si liggéey bi mooy sëñ Cheikh euh, sëñ Abdou Lahad mu sëñ Cheikh Abi ak sëñ Hamsatu Mbacke ak sunu jëwriñ ji suñu kilifa Cheikh Sidil Maxtaar di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér ci barke Serigne Touba xasida yi di ko ñaanal rakkami ak mbokki julliteeg mbokki taalibe yëpp waaw wax ji rafet na ñu ngi lay laaj tey bésab tey bii na nga ko gisee ginnaaw bi ñu xëyee yëpp ñu jaar xëy nañ dem Xuru Mbàkke jóge fa ñëw Touba jóge fa dem ci sëñ bi bésab tey bii nan nga ko gisee daal ak nan nga ko jàngatee. jërëjëf waa bésub tey bi moom bésu mbégte la ci ñun ndax sumb dara rek mu sotti maanaam loolu suñu borom la te lii rek ndimbalul sëriñ tuubaa la ndax ñun ay ndongo lañ rek dañuy sabab rek sëriñ bi moo ñu mottalil ziar bi moom tawféex gën ci na doon na séntu rek euh, am nañ ko ci te loolu maa ngi koy seereel soxna li nga xamante ne moo nekk ci xolu soxna yëpp ndax ku ci nekk mun naa ne jot naa sa impression balaa balaa balaa muy ñëw di toog fii ñuy jàggat di tàggat di kii di gën a ñuy soññaat nag suñuy jëmm nag ndax tey jii am nañ loo xamante ne nii lu kawee suñu njort la waaye lii nag dañu jàpp ni tàmbali la rek ci ñun waaw ndax liggéey Sëñ Tuubaa moom tànk kanam rek la am te tànk kanam yooyu ci la ñuy nekk rek di ci ànd ak suñu jëwriñ yu baax yi Baye Saliou Niang ak yaay Kodou Kanji ak ñi nga xam ne ñoo ñu jiite ci liggéey bi yëpp di fesal daal suñu mbégte ak suñu sant bu baax si ànd gi nga xamante ne ànd nañ ko ak ñoom ànd ko ànd ko ak ñoom liggéey bi te ñu ñuy ñu ñu ànd ak ñoom ci ànd bu rafet macha allah. ànd goo xamante ne Serigne Touba képp moo tax ak xasida yi ànd googu nag ñuy ñaan ci barke Cheikh Ibrahima mu téyel ñu ko bu baax te saxal ñu ci li nga xamante ne moom la sëriñ bi bëgg muy jàng xasida ak jàng alxuraan ak liggéey Serigne Touba te sellal ko ci loolu la ñu nekk liggéey bi nag lépp loo gis rek organisation la dañ koo def par commission ku nekk am foo jàpp bu ko defee liggéey bi mën a oyof ci ñëpp ziar bi Xuru Mbàkke ba ñu dooree ci suba ba léegi fa ñu tàmbalee Xuru Mbàkke ba fii ñuy egsi nii mu kër Sëñ Amsatu Mbàkke lépp daal macha allah tawféexe na bu baax ndax lépp loo xamante ni ñu ngi ko ci doon namm mun naa ni daal wax dëgg neex yàlla am nañ satisfaction bu rëy te loolu ñu ngi koy santaate Sëriñ Tuubaa rek di ko santaate ñi nga xamante ne ñoo nekk suñu kanam te faqatal luñu benn yoon mmh. waaw soxna si kàddu yi rafet na léegi ginnaaw bi loolu jeexee dañ lay laaj lan ngay ñaax sa mbokk soxna yi ak mbépp mbokk taalibe boo xam ne dafa nekk ci liggéey bu mel nii lan nga koy wax. waaw ñaax boobu moom ak soññe boobu mu ciy jiital sama bopp rek ndax ñun soxna yi suñu ànd xëy na dafay xaw a jafe saa su nekk ndax li ñuy reproché day xaw di bari lool lool lool lool mooy soññe gi rek ñu gën a góorgóorlu taqaat laxasaay te xam ni rek yoon suñu tubaab bi dara mayewu fi lépp dañ koy jaayante rek jël suñu bopp daal def ko ay def suñu bopp ay ndongo dëgmal Serigne Touba kennal Serigne Touba. ànd ngir jëmmi sëriñ Tuubaa ak xasida yi kase tax loolu moom gëm naa ne bu ñu ko defee nii nii di yëkkateendoo di tegandoo li murit di yàggee di àndee incha allah rabbi li ñu bëgg ci yoon sëriñ Tuubaa bi la amoon ci mag ñu njëkk ña ba léegi mi ngi fi waaw kon ñun bu ñu góorgóorlee as tuut rek sëriñ Tuubaa dinañu jàppale bu baax ak sana jaar yotulaa mi nga xam moom la ñuy roye kon yaakaar naa ñun soxna yi soriwul ñuy wuti ji fenn sariwul ñuy lii fenn ndax soxna jaar lañu am soxna jaar moom nga xamante ne moom am nag bu ko jàppee rek topp ci yoonam rek waxatuma laaj nag ñuy roy soxna jaar waaye buñ toppee ci yoon bi nga xamante ne fa la soxna jaara jaara tey kéemtaan yi nga xamante ne waxat nañ ñu ko tey jii ci xurumbàkkee war nañoo tax gën a jaaj ji gën nañoo jaajjiwaat ñun soxna yi ñi nekk ci buumu sëy ak ñu nekk ci buumu sëy yëpp ñu koy jaayante xam ni ci liggéey bi lay tàmbale jaayante bi fii lay tàmbale si liggéey bi balaa ñoo dem feneen ma ci soññi sama mbokk soxna yi di bépp soxna bi nga xamante ne mooy soxna taalibe la daal ñu góorgóorluwaat ci liggéey bi fonkaat suñu bopp bu baax te sellal liggéey bi ndax ci sellal liggéey bi rek lañ mën a amee li ñu bëgg waaw kon nag comme que ay ndaw lañ nag ñi ngi jaayante ngi jëmmi Sëriñ Tuubaa xasida yi ñi ngi ñaan nag ci barke Cheikh Ibrahima Fall xasida yi mu téyal ñu boppam waaye tànk nag bëgguñu suñu ñu nit sàmm suñu bopp sàmm suñuy suñuy cër kon amaana loolu xëy na dina jafe loolu si bu ñu góorgóorlu ak as tuut nag gëm naa ne dina sotti incha allahu rabbi waaw mbégte daal lañ am bu baax jariñ bi sant nañ bu wér a wér bisimilah barki borom Touba jërëjëfati Sëriñ Touba question boobu moom dama ciy kontaan tontu Eukhly Ndidi lan la ma defal damay njëkk a sant Serigne Touba ba ma jokkoo ci ëxlu bi ndax wane sama sama sama finde ak sama bëgg ak sama gëm ci xasida yi Eukhly Ndidi ba ma ci doon jokk bëgg xasida ak Ndidi moo taxoon ma bokk ci bokk naa ci membre yi nga xam ne ñoo ci njëkk a jokk daanaka ci membre yooyu laa njëkk bokk bëgg xasida moo taxoon ma dugg ci surtout xasida gii ñuy wax Ndidi lim ma defal nag rëy na si man lool maa ngi ciy sant Serigne Touba bu wér ndax dañoo yokkaat sama pas-pas ci xasida yi yokkaat sama pasteef ci sëriñ bi yokkaat sama sama gëm-gëm ci bëgg Serigne Touba ak liggéey Serigne Touba kase bañ kaa booleeg caaxaan ëxlu bi dafa maa dafa maa dafa maa war loo xamante ne maanaam dañ maa jàngal bëgg Serigne Touba kase kase bañ koo boole caaxaan te loolu maa ngi ko gisee ci kan mooy bachaal yi ni muy doxee ak soxna Madiana ma jàngi ci ñoom lan bëgg Serigne Touba kase moo am njariñ ak liggéeyal ko dong dong maanaam ci ci lu ma ko mën a résumé oxlu bi dañoo yokk sama bëgg ci xasida ak Serigne ak liggéey Serigne Touba. liggéeyal fi Serigne Touba soxna jaara ci xasida gi loom lu ma jaral nag moom rëy na jaral na ma lépp lépp la ma jaral. man maanaam dama cee dogu daal moom ngir liggéeyal fi Serigne Touba ak xasida yi ñoo ma fi indi moom moom laa moom ci laay dox ba léegi nii ba fi ma nekk nii jara na ma lépp nag ni ma fonkee nag sama sama lépp ci sëriñ bi noonu laa fonkee kuréel gii nii parce que dañ dañ maa defar dañoo yokk sama bëgg ak sama ak sama pasteef ci xasida yi kon nag jaral nañ ma lépp man tey moom yëg naa ci man maanaam ak taw feex laa ci yëg daal parce que yàgg naa kaa dégg xar baax yi fi nekk li fi nekk yépp ci ay ay kéemtaan te mosuma foog ne daal dinaa si ñëw moo tax ren ji ba ma déggee ne ziar bi dañuy dañuy jaay xuru Mbàkke daf ma damaa gën a damaa gën a kontaan gën a sant Serigne Touba ndax Serigne bi defar na ma tawféex ma ñëw fi ndax comme niñ ko waxee rek sànq sëñ Abdoulaye ñëw na fi sëñ Bassirou noonu kon maanaam digle nañ sax murid yi ñu ñëw ziare si xuru Mbàkke gi kon nag ñëw gi ma fi ñëw maanaam dafa gën a yokk sama bëgg ci sëriñ bi gën a yokk sama dogg kontaan naa si torop santaat ci Serigne Touba bu baax ba ma defalee tawféex googu noonu ma ànd ak ko kuréel gi li ma leen yi dénk dama koy njëkk a dénk sama bopp mooy lan ñu gën a fonkaat kuréel gi gën a jàppaat xasida yi te xam li ñu fi indi li ñu fi indi mooy lan ci kuréel gi liggéey Serigne Touba man dama ma ci doon tàbbi xasida gi di sindiit yi moom laa bëggoon lool soppoon ko doon ko jàng gis ne ñoom dañuy liggéeyee Serigne Touba ci xasida googu noonu ba tool moo taxoon ma jokk ci kon nag loolu ñu indi ñu fi muy liggéey xasida yi nañ ko gën a fonk gën koo jàpp te xam ne li lii ñuy def nii suñu ngërëm ak Serigne Touba mi ngi ci ndax saa suñu indee saabu sëñ am sëñ am satu ñëw ziyaar saa su ne mi ñu ciy sant bu baax di di di rafetlu sunu liggéey boobu kon maanaam ñu suñu ngërëm a Serigne Touba ñu am ngërëma a Serigne Touba mën nañ koo am ci liggéey bi kon nag nañ gën a fonkaat kuréel gi respecté waat charte kuréel gi maanaam programme bu kuréel gi nekk nañ nañ ko dund ànd ko ak moom def ci lépp lu ñu mën ak lu ñu mënul man loolu laay dénk sama bopp di ko soññ soxna yi ñu gën a rafetaatal suñu ànd gën a gën a defaat daal Pastef ak dogu ci kuréel gi bu baax a baax a baax ndax ñu ñuy séentu fu sori lool lool lool te ki ñu àndal tamit dañ xam nañ ko daal moom maanaam sëñ Amsa ak sëñ Abdoulaat Abi bi ñu àndal ñoom ñëpp xam nañ leen ne joxuñu dara àdduna lu dul sëriñ Tuuba ak xasida yi kon nag nañu gën a fonk lool noonu sëriñ bi ak xasida yi wajjahtu kulliya bi amdin wa sukuur ilaa waliyil mu'miniina wa sakuur kun yaa wali yaa qadiir yaa nasiir lil mu'miniina innaka alhaadi albasiir azawta fawran li siwaanaa kulla man laysa yakuunu mu'minan yaa da zaman أثبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مسلما يا ذا الزمن أذبت فورا لسوانا كل من ليس يكون محسنا يا ذا الزمن نفعتنا بأفضل الإيمان فلتنفع الجميع بالأمان حفظتنا به وبالإسلام فلتحفظ الكل عن الملام قدمت سيد البرايا مدى والأنبياء ورسل يا من همدا خذ الصلاة والسلام أبدا لهم كما أخفيت من لم يعبدا إلى النبي خذ الصلاة والسلام والأنبياء ورسل منزل الكلام siyaare sunu kilifa gi ñu toogal di Cheikh Amsatou Mbacke Asadul Xadim te di ko ñaanal sëriñ bi gën ko fee yàggal te gën ko wéral Mbacke mu mel ni mbooloo mi toog tey ñooy ahlu sindiidi ñoo jóge ba soowu ñuy jóge Bambey ñuy jóge Daara Jolof ñu def jenn say ak benn mbooloo ñëwoon tey fii di la feeñal seen yéene ak seen pas-pas ak seen cofeel ci sa jëmm ju tedd ji di ginnaaw loolu it di tuubaat bu baax ci guddee gi it ak coono yi ñu fi indi waaye it di fas yéene gàttal kàddu gi rek ndax ku ne xam na ne xat na te ku baax ki am na yeneen yitte yoo xam ne war na koo doxale ji waaye Mbàkke it mbooloo maa ngi mu meloon ni am na ay kàddu yoo xam ne yóbbante nañu ko seen jëmm ji mu mel ni si ndigalu jëwriñ mbooloo mi Mbàkke dafa si am ñoo xam ne dañoo toll si di jàng te noppeeguñu ñii daanaka jàng nañ ba noppi ñii di yaxantu ndax danoo xam ne sunu aajo yii bu toqee seen nopp yi tedd yi am nañ yaqin gu wér na Seexul Xadiim danañ si defal li li ci gën loolu képp a tax ñu ne woon nañ leen ko joxe nga ñaanal sa njaboot gi nga xamante ne nu kenn ku dul yow ndax ba nu jógee di siyaara ji kat xetuk sëriñ bi lañ doon xencu si loole moo tax at mu jot saa bu nu jógee fii lañ ko fii la ñuy teer si kon Mbàkke noo ngi ñaanaat bu baax ngeen gën fee yàgg ndax xam nañ seen yàgg gii kat mooy sunu jariñ kon noo ngi tuubalaat sëriñ bi bu baax di wàcc kàddu yi ngir day mel ni sëriñ bi jotaay bi daa xaw a xat ngir ñu tënk foofu rek te jox sëñ Mame Mbaye asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki taalib yi fi teew sëriñ bi nee na mi ngi leen di nuyu bu baax a baax te di leen sant te di leen balu xaq ci jataay bu yàgg bi waaye it moo ko ci jublu ngir nammante koog yéen seen pas-pas yi ak seen yitte yu kawe yi ngeen jóge pas-pas yi sëñ Tuubaa yooyee la nammut ngeen ñëw ci kër gi rek deme noonu nii ngeen di wétali moom itam ci xasiday sëriñ Touba yi nga xam ne jaww ji day wax ne bu sañoon ak suuf sii waxtu wu jot dana leen dégtal sëriñ Touba ba bu ëllëgee bu dajeeg ñoom fa kanam Serigne Touba du lay du am lenn lu muy lay kon yéen yi nga xam ne booba ba léegi mi ngi ci biir waaye mi ngi bàyyi xel njàng mi daaj bu jàll rek beneen ñëw xasida gu jàll rek geneen ñëw waxtu yee wi ngeen fi toog ba ba ngeen di nopp lépp mi ngi koy bàyyi xel te di ko teewlu te ko ànd yéen sëriñ bi nee na nammanti ko yi ak di leen yaxaanal rek moo tax waaye xam na yitte yi ngeen jóge ak pas-pas yi ngeen dajalee ba ñuy ñëw nee itam seen jëf ji du jëfi tey jëf ju yàgg la woon waaye daa wax ne nañ jiital ci kàddu yi lim boobu ngeen di def mi 1111 sindi di yi ngeen di def ak kaamilu alquran boobu saa bu ngeen ko tàmbaleetee na ngeen ci jiital sëriñ Seydil Mokhtar naam yéen a ngi ci waaye ngeen koy gën di feddale ndax moom kat ak yàggam fi dafay jeexantal ci ñun nee na ñu ko ci ñaanal bu baax a baax te moom mi itam ñu di ko ci ñaanal yéenam ci Serigne Touba waxtu wu jot mu koy gën di jekku di ko gën di matale Serigne bi neena bu loolu jàllee itam Serigne Abdou Lahad mii mi ngi leen di seereel ne doomam la ab jarbaatama ab sëtama dib xaritam itam te looloo ko ci gën a ñor mi ngi wax ne mboolem liggéey yi ngeen wax fii ne ànd ngeen koog moom Serigne bi nee mi ngi leen koy loo dénk ndax mbooleem lu ngeen ko defal moom ngeen ko defal te Serigne Touba ngeen ko defal kon pas-pas yi ngeen jógee woon ba ànd ak moom ci liggéey yooyee sëriñ bi nee na mi ngi leen koy dénkaat bu baax a baax waxtu wu jot te na ngeen xam ne mbooleem lu ngeen ko defal moom ngeen ko defal te lu ngeen ko defal sëriñ Tuubaa ngeen ko defal kon sëriñ bi ne mi ngi jëlaat jëmmam ji di ko waat sëriñ Abdou Lahad ci seen jëmm yi di wax ne liggéeyub saabu yooyee day ñor na ko lool ndax donga yi kat nangoo naa ci aw lemmiñam mu wax ni waxtu yi ma tollee ci li ëpp ci doomu aadama yi di ma gis may sori pelkaan jublu ma ci woon dara lu moy damaa xam ne doomi jàmbur yii ñu ma jox ñu jógee seen i kër yi ndey jógee seen i kër yi bàyyi ñëw fii ñu jox ma leen ngir jëmmi sëñ Tuubaa du ma sol moos mubbam ñeen fukki junni di bàyyi donge yi duñ am lu ñu lekk kon loolee ko yóbbee teraangay sëñ Tuubaa ju masam nangoo ñaaw ci nangoo naa itam ci aw la mu wax ni liggéey sëriñ Tuubaa bii day yéene jim ci am te yéene ko liggéeyal sëriñ Tuubaa yëg na ni sëñ Tuubaa fee dikkal na ko ci ba mu yëg cant goo xam ne mi ngi leen di seereel yéen ñi ñëpp ak cantam sëriñ Tuubaa te di sàkku ci yéen ngeen seereel ko moom ak santam ci sëriñ Tuubaa ndax wóor nañu ne wóor na ko ne Serigne Touba féeti na ko fépp mboolem lu muy lu muy xalaat mbaa mu di ko yéene jëf saa bu geesoo gis Serigne Touba defal ko ko ba wax na ne ñaanam gi gën a mooy bàyyi naa ko ci loxol Serigne Touba te lu mu wasa wax ne bàyyi naa ko ci loxol Serigne Touba bu geesee Serigne Touba defal ko defal ko noo xam ne bu tëdd tëjoon di ñaan du ko amee noonee kon ngeen yëg ne mi ngi leen di seereloo ak cant di ko seerel Serigne Touba waxtu wu jot di wax ne itam mi ngi leen di delloo dénk ci ñu amee melokaan yoo xam ne kenn du jaare ci ñun di yab Serigne Touba te loolu nee ab junju la te bu ko waxee làmb na lu bari surtout fii jamono toll sëriñ bi nee na kenn ku ci nekk na nga dimbal dimbalee sa bopp liggéeyal sëriñ Tuubaa ci sa jëmm ba kenn du jaaree ci yow di yab sëriñ Tuubaa loolu bokk na ci li nga xam ne mi ngi nu koy sa mi ngi koy sàkk ci ñun ñu gën ciy góorgóorluwaat bu baax a baax la ci dolli tam sëriñ bi dafa wax ni dimbalante gii nga xam ne yëg na ni yéen a koy dox ci seen biir di ko dimbalee day wax lu baree bari di ni na xam ne liggéey bi kat dëgg la naam jàng xasida ci la bokk ak naan kafe waaye na ngeen xam ne liggéey bi dëgg dëgg mooy fexe bay dimbali ko dimbaleen ti seen biir ndax bu ngeen dee dimbalente ko ci seen biir ci leen di sëñ Tuubaa jaare ba dimbali leen kon nañu xam ne liggéey bi dëgg dëgg mooy di dimbalente sëriñ bi itam wax na ne mbooleem ni ngeen fi ñëwee nu ngeen fi daan ñëwee ñëwi wii di ko cee gën neex ndax sëriñ bi kat dafa bokkoon ci ab liggéeyam mooy na say mboolem taalibe yi ba def leen ñuy benn te yëg ne lim ngeen fii warab yu fasanti ko jóge Kaolack ñi jóge cees ñii jóge bitim réew ca fa ngeen doon xamante ñu ci bare bare ciy dég-dég la woon waaye du ab gis-gis ba lii mën a am kon pas-pas yooyu ngeen ànde ba lii mën am mi ngi leen di dénkaat ngeen gën dolle pas-pas yi gën a gën gën a nosu gën a tegu ci aw yoon sëriñ bi nee mi ngi leen di ñaanal ci daraja Sëriñ Tuubaa mi ngeen jóg waxtu wu nekk saa bu ngeen yëkkatee bu tànk lépp dëppoo ndigal ndigalal Serigne Touba wax na itam ne mi ngi leen di ñaanal aajo yiñ ñu fi gis yëpp mi ngi koy dugal ci biir aajoom jébbalaat ko Serigne Touba te moom lu mu teg ci loxol Serigne Touba Serigne Touba dana ko nangu te dana ko defee nu kawe njort kon mboolem ñi fi andi mboolem ñi fi andi am njàng te yeggal mbaa ñi ci nekk te yegalaguñu la ci seen i aajo yàlla ko sëriñ bi def ñi toll ci wàllu sàkku liggéey wala soxna yi nga xam ne dañoo toll ci wàllum njàng mbaa ci borom kër kenn ku ci nekk lay sa yitte yàlla na ko sëriñ bi def sëriñ bi nee na mi ngi leen di fàttaliwaat di ko fàttaliwaat waxtu wu jot mboolem lu ko nit di ñaanal na ci jiital seex sayyidal muxtaar da ko ñor lool. liggéey bii nga xam ne ànd ngeen kook moom nag muy liggéeyub saabu yi na ngeen yëg ne lu ko gën a ñor dongab dara amut lu ko gën a ñor dongab dara amut ndax moom ci jëmi boppam kat ni jim am ci liggéeyal sëriñ Tuubaa da koo jaaree ci ñooñee ñuy doomi jàmbur yoo xam ne dañoo bàyyi seeni i liggéey ba dañoo bàyyi seen ndey bàyyi seen i bàyyi ñu jox ko ko ngir jëmmi sëriñ Tuubaa te li ko war lépp li war lépp ci ñoom ci moom mi la war kon ku koy jàpp ci liggéey boobu na nga xam ne féete nga ko ci liggéey Serigne Touba foo xam ne kenn féete ko fa wa aleykum salaam wa rahmatullahi ñoom ñu des ci ginnaaw amut du ci bisub xasida du ci ziar bi ci saabu yi ci benn liggéey du 17 safar du màggalu Sëñ Abdou Lahad màggal boo gis rek góor yàlla yu takku jugee soowu mbaa ci yeneen barab yi ñëw ñoom itam noonu lañ ci takkoo ñu lay seeral daal seenu pas-pas te liggéey bisub xasida bi itam ci ci njiit rek la ñëw ak jaalibatu <laughs> ak jaalibatu boole na ndax yàq na ci nag waxtaan bi sëñ bi ñu jox ko ndigal mu boole ci jaalibatu waxoon naa leen ñu bëgg a xut waaye waaye tënk bi ci njiit bi moom ci defee daal ñoom duñ dugg kon sax tàmbali nañ ko ah tur bi suñu di moom tur bi la waaye. <laughs> jaay gaa yëpp am nañu tur waaye danañ danañ barkeelu feneen nag dina faa. ñun daal yooyu rek loolu daal la seere. waaw mbubb yu ñuul waaw xanaa gën a ràññat na mbooloo mi ndax ci bisub xaside si Sëñ Abdou Lahad bi ci lañ ko tàmbale góor yàlla yi di sol bàyyi son yi bu ñuul mbaa bàyyi laat bu ñuul soxna yi di def seen noir blanc yi. waaw damay tooñ rek loolu moom. baabar yi léegi rek mën a yebaate rek. ah. waaw dara jiw daan na bu daraaje rek. ceex gi kay saa su ma fi duggee moom mu ruus moom parce que ci moom mu ngi laa fi def da ngay lambay nga tàmbali yëngal moom. ñaanal leen ñu mbàcc ndax ñoom itam bëri si ñoo xamante ni ñu ngi université ñii di def examen ren muy baccalauréat ñii BFM ñii nekk di yëngu ci seenu tailleur ak yooyu moom na nga ñaanal leen tamit sax borom defal leen tawfeex bu baax a baax ci li ñuy yëngu. te itam lool mu xoolee rek xam ne li ñu war a sintuwaat rek la ci ñoom. waaw waxtu bi dégg nga dégg xoolal ma lii ak coono bi ma leen koy jot. ñoo koy jaar pour Mbacke. sëriñ bi nee na ngeen na ngeen sant yàlla bu baax nee na da leen di ñeewante lool ku leen xool seen pas-pas yi xam ne li ngeen di woote seen jubaat dëgg la. sëriñ bi nee nañ am na ci yéen a ñeewante lool ku xool seen kanam yii nee na pas-pas yi ngeen di woote seen jubaat dëgg la. jërë ngeen jëf. na ñëpp tàllal te lu waay bëgg mu fas ko. وجهت كلي بعمد وشكور إلى ولي المؤمنين والشكور قل يا ولي يا قدير يا نسير للمؤمنين إنك الهادي البصير أذوت فورا لسوانا كل من ليس يكون مؤمنا يا ذا الزمن أذوت فورا لسوانا كل من ليس يكون مسلما يا ذا الزمن أذبت فورا لسوانا كل من